contentement bu baax ci famille boobu nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca jàmm gën guy jaksaaw ñoom Alpha DJ LD ñoom madame Ba jam Jaminatou Diallo à Malika cité Sonatel Gilles ak Binte Diallo nuyu nañ leen bu baax ak Adja Diallo di am mbégte contentement ñu dem seeti la pénitentiaire ak Karim. lé sama yaay de ñëw na fi sànq ne ma muñal rek di nga di nga mos a génn sama yaay dafa bëgg de dafa baax pénitentiaire sama yaay ñëw na fi sànq boobu keneen ki moo fi nekkoon beneen gain bi euh, euh, kii ki la relevé démba Konaté Konaté moo fi nekkoon sama yaay sax mu may wax ne ma su ma génnee jàmm ma ma ma ma am jabar ñëpp bàyyi ma si sama jàmm ma am sama jàmm loolu laay def mais jabar léegi nga koy tànn doo bàyyi ba génn soo génnee nit mun na la bëgg te doo xam lu tax ci si bi nga amee naqar ci ngay xam sa nit ci moment bii laa bëgg a gis jigéen bi nga xam ne dinaa ko takk parce que procès bi dañuy war warlu rek yàgg-yàgg damay génn di wax ak nit di wax faale wala moo gën a bon te koy dóor te du fay bu yàggee mu dee sa coiffure bi ngay nuru ak boppu ginaar xoolal yeneen prisonniers yi ñu ngi reetaan ci beneen kii bi <laughs> xam nañ ne xas na la ginaaru français ngay nural mooy i cokkoli te seen karaw yi di mbasu man sa man damay ñaan yàlla am am jabar bu tudd Roqoya war wara jabar boo xam ne day tudd Ndumbe war a jabar boo xam ne day tudd Ajar Aja war a xoyaan tur yooyu waaye ay laari pénitentiaire man de man xam naa ne yooyu ñu may bëgg a rey xaaral ma muur nii comme ça su ma amee nag commencé ba yàlla dimbali ma procès bi jeex am na yeneen métier yoo xam ne ñoo gën a neex lii topp nit ki ne ko siñ fang rek di ko xool di ko wër wër lu mel ne luy daw yow nga tëj bunt bi tëj bunt bi tëj bële lan lay dawee pénitentiaire bi monté woon fii démb temps bi rafet na trop kii garde ñoom yeneen pénitentiaire yeneen détenu yi day def ay pose ongle xeef lef lu rafet rek di sol yéexe bu solee tenue bi nii bu ñibbi da ngay gis mu rafet waaye yor coiffure yoo xam ne kon ginaar bu coiffé ji ginaar bu jigéen seqatiix bu fuuta bu tawte ginaar fuuta yi dañuy sew jigéen daal da ngay xajam di cokaas góor di fo di doo dàqee waaye fas sa kanam te man nit lay waxal de mooy tul tey ginaar de dañu naan wax kes boo yoree dunq rek dañu yaakaar ne ginaar nga. yoo xam nga la mooy sa problème. da bëri wax mel ni ku ndekkee magnétophone nii reeree rajo da nga war a noppi ngay mel ni njulli bu taw a wér yow lan la. Eh, may buzz laajuma la dara détenu buzz. détenu eh, bu ma waxee ci cim de. maa ne cim singili sa morom la te man du ma si singili na xamal sa bopp de. singili kay bu doon bëy caatam man lay taawloo singili. kay kay ma wax la. ñëwuma man bu loo a dama am lu ma lay wax dama commencé ëppal bu ma fi nekkee di wax ak yow nga ëppal. da nga ëppal sax bët yu ron yi man duma ma sa morom. bët bu ron lu muy mel. déglu ma man sa supérieur laa dama bëgg nga tëj sa làmmiñ yow di nga sax ci kaso bi yow. sa yéene la waaye loi bi mooy atte yow fii nga may wax laajuma la waaye sama rakk moo la eh, gën a moo a mën a tontu te balaa ngay yow Macky Sall du la génne yow loolu la. dara wóor la ci dara wóor la ci danga may garder kese. oui. man may sekku ngay borom sekku. day mel ni Pepe Kale nii ma ne may sekku ngay borom sekku su ma bëree wax man may sekku ngay borom sekku ndax borom sekku moo jàngal sekku wax. soo mu su ñaaxee xëj bu ñaaxee nga xam bu ñaaxee bu sa loxo ñamatee sama yaram sama yaram di la ñam. kay fi nga xool man du ma la daw. taxawal parce que yow da ngay dof dof te dofoo ji ne jàpp la yow dama lay jël dama lay jël.